non pare ngeen ndeysaan Serigne Ndiaye numéro 2 Cobra Serigne Ndiaye moo fi daan Libidor ten fàttali ne Cobra gi ñaa bëre ca diggante ak moom ak Gora Sock ndeysaan arbitre baa ñaar seen combat cay jag si gàcce ngalaama minuit lañ sifflé grand bi minuit lañ ko sifflé Cobra dox ci kawam nañu ñu ngay doorante ba door bu daanu Serigne Ndiaye numéro 2 jël na ko daan na ko Serigne Ndiaye numéro ne woon naa du combat bu yàgg vite bien fait